bëgg seen jëm yi yow mi sax maa ngi lay siyaar faal di la bëgg di la bëgg ak loo mën a xalaat ci man ak loo mën a yëg faal ak lu mën a doon man maa ngi lay bëgg ndax yàlla bëgg la nga ndax yàlla jàpp la ndax yàlla jéggal la ndax yàlla di la jéggaloot ndax yàlla di jéggul sunu borom mu jéggul ñun ñëpp ndax moom it yàgg leen yokk leen wér leen dund leen defargul yàqu ba faw yàlla ngeen sàppaaral ak maam seera faal yàlla ni <coughs> ahmadu baram jaam ni yàlla ngeen gudd fan téeméeri at ak lu teg lu ci tegu baax na loolu leen ñoo xale doyut ci liggéeyal maam Bamba ak maam Seera Faal jëriñ jaam ñi sax di kennal yàlla may kenn wakkiir lu ci moom di ko liggéeyal di ko dund ci maam Bamba ci yoonu murit Amadou yàlla ay kese la amul daree nit